Nous avons mandataire beno Benno Bokk Yaakaar commission de recensement des votes bi nekk département Nous avons également ci organisation élection qui ci le processus électoral Nous sommes ba ci fin bi euh, ñuy nuyu Sénégal euh, wax 80% responsable yi fi nek fi mu ne joxante nañ loxo euh, ca moom loolu moo koy moo koy piloté ci ay réunion wax itam ne ku mel président Moustapha Cissélo Lo ci département bi kenn dootu ko natable ku mel nonu mu ne génnam ci biir département bi du yak du yak dara yooyu kàddu nag mu jaaxal ñu tey ndax euh, liñ jàpp mooy ñun tey jii suñu demee euh, ci ay élection ñu am défaite ñun ñooy njëkk a nekk les premiers responsables looloo tax ñu ne wax dëgg yàlla tey danañ yëkkati ay kàddu leeral euh, kàddu yi nag jëmale ko ci président partie bi muy le président Macky Sall ca tey ji ñun ñun ñi ñëpp suñu yitte tey moy buñu xolé li nga xamné ne def na ko ci réew mi depuis 2012 euh moy bilan bo xamné fenn fune ne mën nañ ko fa wax rawatina dëkk bi ñu nekk ak département bi defe naa jëlu sax may dellusiwaat ci réalisation yi waye su tuddé Ila Touba bi autoroute Ila Touba bi rek euh firndeel la ci né liggéeyam bu rafet euh kon nak buñu ñu ño xamné liñ jàpp mooy ku mel ni Bara Modou Bara Dolly ay profiteurs lañ kon nag profitar moom ak ku bëgg nax euh, li ñu séq ñun dañoo war a jóg démasqué ko looloo tax ñu jóg tey jii pour wax leeral kon na ko ñëpp dégge noonu sëñ Modou Bara Dolly li mu wax. loolu dara amu ci dafa bëgg a naxe bu fekkee nag euh, dafa am ñu ko gembu te mën naa wax sax ca pale ba ñooñu nañ xam ne loolu ñu bëgg a doxal wala ñu bëgg koo tëral ci Modou Bara Dolly ba lu ko neex mu jël tele bi ak réseau sociaux yi di ko wax loolu mënatuñ koo nangu looloo tax ma ne woon tey jii man Mor Lo de nekk conseil municipal fii Touba. Denga, nga nekk responsable politique APR ma wax ko léegi ne euh, coalition Benno Bokk yakar ño nekkoon mandataire parti bi coalition bi ci euh, commission recensement des votes processus électoral bi aussi ñu andone ko ay ñom Bassirou dia ñom Khadim silak ñom Sadaga sek, ak ñom ñoom sila vraiment pour ne citer que ñoñu rek kon nak duñu sétane ba yëf nak sorti tay ji jii nga ñu jëm ci ay élections yo xam suñu itte yépp moy falal le président Macky Sall. kenn koo xam ne peut-être buñ na délégation jëm na Touba rek mu taal otaam ànd ak ñoom ñëw donc euh, wax li li mu bëgg a wax lépp ci lépp di ay naxe donc loolu wax dëgg yàlla euh, mënuñu ko nangu kon nag sëñ Modou na xamaat boppam dégg nga ñun nag ñu fi yàgg lañ ci dëkk bi. Euh, stratégie bi nga xam ne moom laa jàpp pour ñu teg ko pour ñu mën a am ndam. fi ci diwaanu Touba ak département euh ci élection yi ñu jëm muy élection présidentielle yi suñu coalition am ndam stratégie yooyu bi ci jitu moy amna ay xalat yuñ fi defoon ci élection législative yi def découpage politique Touba def ko sept zones zone yooyu ñu tàmbali woon nommé un cordinateur un président ak ay bureau wax dëgg yàlla ñu gis ne euh, am na liggéey bu jaar yoon bu am solo buñ ci tàmbali woon malgré am na ay quelque lu ñu war a réglé waat ci biir waaye li ma jàpp mooy loolu war nañ cee mën a sukkandiku pour liggéey zone yooyu bi ñu ko taxawale ba pare dañoo am ay kilifa yu nekk ci kaw muy président Cissé di indi moyens ndax nag ku bëgg mu génne loo xam ci Touba ak département Mbacké bëgg nga yàqute bëggoo jàppale président Macky sal ndax nag lim fi mën wax dëgg yàlla nañ waxante dëgg rek kenn mënu ko fi ci politique yàgg na ci am na ci engagement alalam aussi du ko fekk ca defe naa loolu moom la ñuy la ñuy la ñuy woote woowe politicien dëggantaan bis yi nga xam ne moom lañu am fii ci dëkk bi aussi mooy bisu suñ sëriñ su baax si taxawaay bu rafet la cee am ndax balaa état bi ñëw sax walla jàpp naa ne lu état bi di ëndeetim lu ci baree baree baree ca fànn yooyu lam ca war a dox walla lam ca nam ko war a taxawee dana ko bind joxe waaye moom ci boppam da ci di jëf ci jëfam yooyu sax mën naa ne département bi sax génn na ko

kenn la dajalewut wala ñi muy dajale lam lam di wax dégg nga euh, woote ci parti bi nag yomb na nga woo ne woo naa maire bi woo naa bi woo naa maire bi mais fi ñu gën a ëpp problème fi ñu am problème dëggantaan mooy circonscription électorale Touba xam ne tey di 548 bureau de vote la inscrits yi rek ëpp na 270 000 loolu élection bu ñëw ñu gis ne bu ñu gañee commune yépp sax tendance bi euh, bu Touba ñëwee rek ñu am fi problème kon nag xalaat yi kuy dajale ñooñu ko war a xool dajale ne dajale ak ña fay nekk di yëngut yoroon élection yi mënoo cee gis kenn ah kenn dajewu ci donc defe naa loolu bu ko waxee ay naxe la du Bara na bàyyi naxeem yooyu dégg nga bu amee ñu ko gemb nag ah ñooñee li fi ñuy mujj mooy ñu demaska leen wax ak ñoom ndax nag ñun ñu seetaan lii ñu sóobu lii ñu fas yéene euh, suñu lépp ñu def ko ci bul falaat président Macky Sall ci danaa ñëw ci léegi réalisation yi nga xam ne moom la fi def ba Sénégal ñëpp mën a jàpp ne kii kat war nañ ko joxaat réew mi pour mu continuer waat ko defaat fi cinq ans keneen ñëw donc loolu lu ñu ko bëgg a yàqal ñun dañoo war a taxaw xeex loolu kon ku mel ne Modou Bara Dolly moom day naxe day naxaate ca naxaam teen yoom ak diilam yooyu nag da koy arrêté sinon euh, danañ jàmmaar la moom ci fànn yëpp ndax nag ñun yàgg nañ fii di politique nga and ak wajuram muy seigne Bara Dolly booba man xaw sax day def politique waye yëf legui day neex rek amna ci ñoo xam ne politiciens yi euh, ab délégation day joge Dakar rek ñu tal seen auto and ak ñom ñew dégg nga sol seen grand boubou. tek seen mbaxana ñu defee ne ñoom la ca fekk yëtatu ñom loolu dafay wara dak kuñ fi jox ndomba tank aussi ñu set ko setat ko ndax nak fii département bi première problème bi mooy ñu fi jox ndomb tànk ñu ci ëpp moyewuñ moyewuñ seen mayo loolu moom lu ma ñemee wax la waaw ku wedd li ma wax nag nga génn tuddal ma ay tur ma joxe sam ab appréciation ndax nag suñ xëyee ci dëkk bi ci la ñuy xëy ci la ñuy gont ci ci yëngutu yi donc lu fi xew ñu fekke ko kon ku fi moye sa mayo xam nañ ko ku fi moyewut sa mayo aussi xam nañ ko ca loolu nag daa war a dakk ndax nag ay ndomba tànk politique kuñ ko jox vraiment da ngaa war a ñëw di wàcc si di wax ak askan wi di wax ak say militant loolu nag du ma limagun ay tur waaye manqué na fi nomination yee itam président xoolaat ñeneen ñu ko gën a taxawal fii ci Touba ndax potentiel électoral bi da ngay dajalee lay wate toute une région nga ñëw Touba rek ëppale ko 300000 inscrits du caaxaan donc lolu su élection normale amé ñëpp voté fuñ basculé wu lolu day daal di nekk lu lu am solo président nak du rek dañoo nekk APR moy suñu candidat waye candidat gi ak. wax ne dañ ko war a falaat ci loolu lañuy liggéey tey ci lañuy liggéey ëllëg ak suñ kilifa président Moustapha Cissé dañ koo teg fu wér ndax nag mu ngi liggéey ci réew mi lu baree bari ñépp ci teg seen bët xanaa kay mu am parti wala mu am coalition bu ko jàppale dëggantaan mën a communiquer nit ñi loolu moom manqué nañ ko waaye nag lim liggéey ci réew mi moom defe naa defe naa lu bari jaar na fi waaye ñu bari jaar nañ fi waaye lim fi defagun kenn defagu ko fi nag nañ nañ waxante dëgg rek ak yàlla yàlla rek moo tax ca taalibe sëñ Bàmba la dëkk bii di Touba aussi mu jël projet 416 milliards jëmale ko fi muy illaa Touba bi wàllu social boo ñëwee nag de premier nécessité yi moom ba mu faloo ba léegi kenn wax dëgg yàlla gisul mu yokk dégg bourse de sécurité familiale yi Touba gi may waxe bokk ci moom itam mu am taxawaay bu mu ci am tey jii boo ñëwee lu mat cinq mille et poussière boursier ña ngi fi wàllu tali gis nga corniche bi muy defar route secondaire yi nga xam ni moom lay def moom lay moom la moom moom la ñuy def ci dëkk bi corniche bi mu nekk prolongement ila Matam bi ak ila Touba bi léegi mu pare walu courant aussi bien que nak tal yoy aussi amna ay quartiers yo xamne ñi ngi ñaan ngi dugg fa muy santiani waaw ndax ñoom itam ci ay dund ci dëkk bi lañ ndox également ngi Cheikh mi nga chaque année am projet diko

ci ku dem ci kaddu bàlloo ji da nga gis réalisation yiñ fay def CIVD beeg ak CT CTT bañ fay def ak euh, point de regroupement normalisé yi nga xamné ne ku amati mbalit fofu nga koy yóbbu ci koñ yi ak camion yi yiñ wara jënd pour lool yëpp ci projet bobu ci lool Macky président Macky Sall moko andil dëkk bi barki dem walu assainissement presque 11 milliards investir nañ ko def fi ay canaux de grand diamètre rayon Djumadi, ji ba ci cor première corniche bi nga jëm route bi euh, nga jëm euh, euh, étage nationale bi problème la won bu su nga sax canaux de grand diamètre lañ fi def station de pompage bi nek marché cas ak ak grande mosquée bi défi fi ay pompe yu mucc ayib ah hein? défar aussi ay bassin yu mag Kër ak Daaru Rahman barki démb la fi directeur ONAS ak gouverneur ñëw tek deuxième conduite bi nga xam ne mooy jógee dem Daaru Rahman defaraat deuxième bassin foofu également pour ndox mi ñu koy mën a pomper su tawee ñu koy pomper lolu ay réalisation yu yu bare bare la waaye jël ay milliards nak suul ko ci suuf donc bu bu bu jeexee jeex na ñu bëree bëri duñ ko xam mais ñun ñu fi nekk xam nañ ne vraiment ay ay investissement yu lourd la fi président Macky Sall def xale yi jigéen ñi tey jii DER bi ñëw na ñu ngi bind projet yi dégg naa ñu ne arrondissement ndaam presque 1000 projets enregistré nañ ko loolu itam ñuy ñaan wax dëgg yàlla ñu fexe ba teg ko ci yoon ñi ci war a am ñëpp ñu am ko.

rawatina nag diwaan bii ñu nekk muy Touba ak Mbacké ca ñu faral ay élection ñu ci am ay jafe-jafe defe naa bii moom ah mën naa wax remontada moo fi moo fi am maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp.